encore une fois ñu ngi leen di gërëm ci li ngeen jot a def ay milliers commencé nañu di ko joxe ñu leen di fàttali rek ni tey journée de relance la mbir mi yemul tey rek gis nañu ni sénégalais yu bare jóg nañu bëgg yónnee seen xaalis dafa fekk bu ñu bëri joxandoo yónneendoo léeg-léeg système bi dina am bëgg mu am difficulté pour mu jàll waaye bu mu tax ngeen découragé da ngeen di reprendre te suba gannaaw suba fii ak un mois dañuy continuer jusqu'au 2 janvier. dañuy continuer collecte bi pour mën a atteindre objectif yi nga xam ne moom la nga xam ne mën nañu ko jaar ci koppar Express bi mooy bi gën a simple itam parce que amul benn plafond yeneen numéro yëpp nag dañ koy suivre au quotidien di ko génnee di ko reverser ci koppar bi pour que ngeen di mën a am marge mais bu leen ci décourager benn yoon loolu vraiment ñu ngi leen ciy ñaax ku yónnee mu am jafe-jafe essayel beneen système bi ci beneen numéro wala Wave wala Orange boo amee jafe nga reprendre sax le lendemain na leen ko jaral comme ni mu ko jarale seeni leader pour que ñu atteindre suñu ay objectifs li ñu war a def lépp ci suñu suñu wàll dinañ ci taxaw sécuriser ko ba nga xam ni képp ku ci yónnee sa cinq cent francs wala un million wala comme ni ko Ousmane waxee léegi milliard am na fi ay parti yoo xam ne ak yoo xam ne mën nañu si dimbali ci loolu ak sénégalais boo xam ne am nga ko. Euh, ñu ñu assuré leen jox leen garantie que xaalis bi dinañ ko yóbbu fi mu war a dem maanaam ñu delloowaat sénégalais yi ak espérance ñu gañee collectivité locale yépp ci bu ñu yeggee ci le 23 janvier mu nekk nag l'amorce pour ñu dox jëm ci élection législative ak comme ni ñu leen ko promettre un changement radical de ce pays à la prochaine élection présidentielle donc Yewwi Askan Wi ci turu euh, commission finance ñoo ngi leen di gërëm bu baax a baax may jox rek euh, doyen Khalifa Sall mu tëj waxtaan wi gërëm leen sant leen joxaat leen rendez-vous la prochaine fois yii dinañ ci def lu baree bare fii ak ñu yegg ci un yi nga xam ni ci la durée wu collecte bi di di di nekk merci jërëjëf Serigne Cheikh ci turu conférence des leaders ñu ngi lay félicité félicité la bu baax ci initiative bi félicité la ci ni mu ni ngeen ko doxale rafet na jekk na mais surtout jub na te leer na boole ci félicitation yooyu Déthié parce que Déthié lépp li nga xam ni moom lañu ñu nar jëfee li ngeen ñu fas yéene dooleele Déthié moo koy doxal moo ko yor ñu doon ñu jub ñu wóor ñu dëggu donc ma di leen félicité bu baax ci turu conférence des leaders di gërëm di sant nag techniciens yëpp muy ñaari présentateurs yi muy techniciens yi ci ginnaaw nga xam ni pour que lii mën ne ak ni mu jekke ni mu taaroo ñoom la merci à vous tous pour cet excellent travail vraiment ñoo ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax nag ci turu leader yi je crois que ku nekk ci ñoom expliqué na leen li nga xam ne mooy suñu yaakaar ak li ñuy xaar ci yéen mais ku nekk ci yeen wax nañu wax na leen aussi li nga xam ne ñun moom la ñuy xaar ci ñun parce que looloo am solo Yewwi Askan Wi day jëriñ askan wi mais du ko jëriñoo Yewwi Askan Wi dafa bëgg askan wi jëlal boppam destinéem ame lii ngeen xam ne moom ngeen di def muy téeméer ak lépp lu seen xol ak seen man-man def dañu bëgg ngeen impliqué wu bokk fekke mais surtout ëllëg si sibir comme ni ma ko waxee sànq ngeen mën a laaj ay compte laaj ay compte rek du nga fal nit ki naan ko lan nga liggéey noo def non non li ngeen ci def bii pas muy plus di innovation majeure bu yeewi askan wi mooy ñu wax leen ngeen ñëw bokk ci seen poos ak seen doole ak seen yéene ak seen mën-mën dafa leen jox nag droit wu ak obligation wu ngeen di nga xaalis bi nga xam ne moom lañ ci def fan la aw redevabilité boobu nga xam ne ñun moom la ñu engagé wu dina leer dërëm bu fi dugg di ngeen xam fan la jóge naan fan la dugg ak lan la jëriñ kooku c'est un engagement que ñun ñëpp ñu jël may wax rek sénégalais yi fi nekk ak yi ci bitim réew ku ci nekk xam leen ni Yewwi Askan Wi askan wee ko soxal askan wee ko ñoral réew mee ko tax a jóg lu ko jëmal kanam moo ko amal solo et lépp lu ngeen ci def seen bopp ngeen ko defal du pour ñun naam dana tax ñu mën leen di waxal parce que nous ne sommes que porte-parole mais ñiy jëriñu ak li ñuy jëriñu ci yéen lay jóge ci yéen lay dem moo tax ñu di leen gërëm di leen sant di félicité waat ñëpp ñi nga xam ni seetaan nañu ñi ci diaspora bi ñi ci kër yi ñi ci liggéeyukaay yi ñi ci terrain de sport bi képp koo xam ne li ñuy def tey ñor na la soxal na la ba nga seetaan ñu rek doy na déjà soo jëlee ci sa mën-mën nga jox ñu ñu gën ko rafetlu bon nag ñoo ngi gërëm ñëpp ñoo ngi sant ñëpp di féliciter nag li leader yi je crois que seen wax yi leer na li ñu wax dëggu na jub na et incha allah lépp lu luñ ci def day leer seen téeméer mooy seen doole mooy seen kàddu mooy li jëriñ askan wi ëllëg maa ngi leen gërëm di leen sant